noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare yu jiital ci nuyu boobu ak ziar bi Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi fi nekk yëpp ak mboolem taalibe yëpp mbokk jullit yi mbokk taalibe yi boo leen gisee ñu taxaw ci jumaa ji ne ngeen xam ne ñoo ngi ci bis bu màgg bis bu am solo ci lislaam rawatina ci yoonu murit mooy bis bi nga xamante ne ci la ko baaxee Serigne Touba Xaadimal Moustapha ñibbise woon ci dëkk bii di Touba ngir lam ñaanam borom ma waxal ne wa jax ilaahi fi maskani Touba abat mu yor suñu borom na ma dafa dëkk biir Touba mu doon sama dëkkuwaay ba faaw waaye nag ci xar ñu Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njàmbaareem xam bu baax li ko wajuróom a dénkoon ak li mu ko bàyyi woon mu sàmm loolu ba tey ji waral Touba mel ni mu mel te Cheikh Mouhamadou Moustapha jëlee ko njaaram indi ko Touba ñu nekk fii rek ci buntu barabu Cheikh Mouhamadou Moustapha bi ngir mbokki jullit yi ak mbokki taalibe bi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci biir jumaa ji ngir siyaar barabu Serigne Touba bi bi waaye nekk ci barab bi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir jumaa ji yëpp ngir bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Xaadimal Moustapha ñu bisewu ci dëkkam bi

ay waxtaan ak wan leen li nga xamante ni mooy njàngam alxuraan mi nga xam ne moo am ci biir jumaa ji te Cheikh Mouhamadou Moussa digle woon ko muy ñaar fukki kaamil ak juróom ñett yi nga xam ne digle woon na ko ci njàng mi waaye ak xasida yi nga xamante ni digle woon na ko loolu lépp fas nañ leen yéene fas nañ leen ko yéene wala incha allah rabbi bu neexee suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi ñu leen fas yéene ànd yéen continuer yéen ci liggéey bi nga xamante ni moo am ci biir jumaa ji muy bis bi nga xam ne mooy bisu màggalu Hisrul Muharram di màggalu Sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafaa fii ci jumaa ji incha allah rabbi ورسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موديها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di leen balu xaq di leen balaq ñaan suñu borom boole ñu baal waye di jital ci ñaan yooyu sahibul fadila serigne touba cheikh muhammadul muntaqa di ñaan suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën ko katanal ba liggéeyu l'islam bi nek ci loxom mu yobbu ko fu kawe ndort yépp tan and ko ak mom ci serigne bi nonu lañ koy ñaanale cheikh ahmadul Muhtar ak mbooleem njabootuk cheikh muhammadul mustafa muy domam yek sët yeeg waaye di ndokkeel mbokki jullit yépp di wax ni alhamdulillah ndigal li ni ko kilifa yi sàkkoo woon jéemees na ko ba jàpp ne mat na muy ku ne xam na ni jamono yii ñu toll jamono la joo xam ne yaakaar naa mbooleem borom basiira yi danañ ko yëkk doonte nekkuñu woon sax ci réew mi ngir eh, jàmbaar ja nga xam ne ku amoon baat bu ëpp boobu moom ngay jëfandikoo muy seexul xadiim eh, dafay mel ne yoor yoor bërk démb ba ba tey jii ci fajar ji ñu jëm muy diggante ba ruuxam gu sell ga tuxoo dem ci boroomam ba ni mu ñëwee <clears throat> ci dëkkam bu tedd bii ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul mustafaa lool di lu rëy lool euh, ba tax suñu boroom taw féexale Cheikh Moustapha ca loolee mu ko dénkoon moy bu sa borom ñewé ku dogalam mu indi ko fi ta bu xat suñ borom tawfiqal ko ba mu defale ko nam ko bëgge won waye it bis bi cheikh diklé lon ko ko ta muy bu am solo lol ba mu koy diklé it mu melne rek dafa delo si mom sering bi bami diklel gam gàmm yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam sallama la mu santaane woon muy tahsimuhu bi sunnati biko cheikh Mouhamadul mustafa di defal bis bi it nonu takahwe. la ca taxawé ndax dafa santane won ne sa bu bis bi diké mu wut ñaar fukki kang ak juroom ñett ño ay nit ñu set ñu set ñu sel lañu doon doon borom alquran yu wër andi leen fi tambalé ko ci biir barab bi ak mi'rab bi ak koñu jumaaji kenn ku nekk ñu jox la ab kamil nga tambalé fatiha ba minal jinnati wan nasi mu tan nit ñenti mukallaf yu mel noonu yi ñu wax ci melokan jox leen jasbul qulub muwahibun nafih muqaddimatul amdah ak mimiyah digal li dess ci mbolo mi fu waay nekk tey borom alquran nañ def seeni kay ñu man xasida nañ ko def ñu man istighfar nañ ko def ñu man salatu al nabi loy man ci lu bax na ko def waye bis bi du bisup loxay neen xamle won ne juboo naak borom ci ku fi fanan ak yene ju rafet ak nang fi wara fanane bo xeye suñu borom jéggal la lolé nak kilifa yi diko ko tax ñu santane kamil bi ni mu ko daan nyu ci bir jumaa ji ñu dundalat ko loolu nak lañ tollu ci muy ag ni ba kilifa yi euh serigne mustapha mom serigne mahmoudan war ko jang khatmu bi lolay di ci ciosan ngir ku nek xamoon na e, cheikh masamba taxawayam ak taxawul serigne bi muy serigne touba lu melni waye it taxawayam ci wetu cheikh mouhamadul moustapha euh, kon lola bëgg gu kilifa yi bëgg mu dundate nam amee woon moo mu delu ci wat momit ngir jang khatmu bi kon kaddu yoy rek lañ bëggoon ubbé léral mbolo mi fi teew luy sababu teewaay bi te di ci sant suñu borom bu baaxa a baax nag ci tawfiq gu ñu suñu borom tawfiixale ba kilifa yi boole ñu ci ndax bis bu melni cibara ci barab bu melni kuñ ci jàngaloo alxuraan dañ laa dimbale te ñi ko man bari na lool waaye sant nañ suñu borom ci bi mu ñu taw tawféexalee ñu bokk ci yàlla nañ ci yàgg a bokk te lépp sëriñ suñu borom nangu ko te bu ko nangoo mu ful ko ba ba mu yeyoo addiyee ju Cheikh Mouhamadul mustafaa di jox sëriñ Touba na mu war a toll ñun day du ñu sëñ woon Moustapha waaye yàlla nañ suñu borom dimbale sëñ woon Moustapha ba suñu ba suñu liggéey bii suñu borom ful ko muy addiyee Cheikh Mouhamadul Moustapha ju jëm ci sëriñ Touba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يعلموا أيها الإخوان المريدون لأنما جمعتكم في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه البقعة المباركة لأذكركم فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية بالاجتهاد في امتثال الأوامر واجتناب المناهي واعلموا أن المأمورات بها إلى الآن غير منهيات وأن المنهيات عنها إلى الآن غير مأمورات بها وأن ذا القدرة والإرادة لا يعتريه عجز ولا كراهة وأن المأمور به مع وعده وأن المنحي عنه مع وعيده وإن وعد الله حق إنما توعدنا لصادق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا تظنوا أن فضل الله تعالى فيما مضى, فيما مضى أوسع منه فيما يأتي غير أن العبد إذا تغير بنفسه غير ربه ما كان به فما لكم إذا سلكتم الطريق أن لا تدلجوا حتى تصلوا نعم إن العوائق والقواطع كثيرة ولا نجاة منها إلا بنصر من عند الله وقد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا أن الدنيا فانية وكل من عليها فان وأن الآخرة هي دار القرار وأنكم قادمون غدا بين يدي الواحد القهار وقد جاء الخطاب قبل ذلك تعليما لما هنالك فقال جل من قائل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا وان ليس للانسان الا ما سعى وان مشقه الطاعه ينسيها الجزاء الاوفى وان لذه المعصيه تسلبها الشقاوه في الاخرى فاعتبروا يا اولي الابصار في الذين خلوا من قبلكم قد فنيت أعمارهم وتقطعت أعمالهم فصاروا سكان القبور بعد سكان القصور فمنهم من يرزقون فريهن بما آتاهم الله من فضله وآخرون نادمون متألمون مما, جازا مما جازاهم من عدله بما كسبت أيديهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولا تحين مناص وأذكركم أيضا ما قلت لكم في في العام الماضي من أمر المسجد وأذكركم أيضا ما قلت لكم في العام الماضي من أمر المسجد كما قلت لكم حرفا بحرف ومن التأليف بين قلوبكم والمناصحة في أقوالكم وأفعالكم ومطاوعة أولي الأمر أيا كانوا وحيث كنتم بالتأدب والإصلاح وترك الفساد في الأرض ولا تملوا فإن الله لا يمل حتى تملوا هذا وإني حامد لله تعالى شاكر له إليكم وطالب منه تعالى لي ولكم مغفرة منه ورضوانه إنه ذو فضل عظيم والسلام محمد المصطفى سجل te weytoo madru yi tuub يا ci yow bu wér te bul su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha